di sant bu baax nag ñi nga xam ñoo amal bés bi di alliance pour le développement de Kër Mbaye Fall lii mooy wane ne gox bi ngeen nekk taxawaayu ndaw ñi euh, lu am solo la mag ñi war nañ leen a ñaanal bu baax a baax a baax ndax lii euh, ñi nga xam ne ñoo ci gën a bénéficier wu mooy mag ñi ndax euh, fukki mag yoo jàpp daanaka juróom-ñett yi ñu ngi ay jafe-jafe bët donc bu ngeen organiser lu mel nii mel na ni mag ñi ngeen ko defal waaye ku fi ñëw itam da fi gis ndaw yoo xam ne nii sunu borom moo dogal ci ñoom seen bët am ay jafe-jafe kon askan wi yëpp la bis bi ñeel tey jii euh, sant nag ak gërëm ñeel. yéen ñi nga xam ne nii yéen ay ay taxawu bés bi eh, ñu di leen ñaanal yàlla yal yàlla defal leen ci ndam lu kawe seen jort ndax eh, wax dëgg yàlla képp koo xam ne nii ñëw nga fi ba gis mbooloo mi fi dajaloo tey jii da nga xam ne nit ñi soxla woon nañu lu mel ni yàkkamti woon nañu ko itam eh, kon yàlla leen ci yàlla defal ndam. man di wax dëgg yàlla bi ma fi ñëwee ci suba euh, seet samay gët mooma ma indi woon ba ma ñëwee itam fekk naa fi personnel boo xam ne nii euh, ñu laabir lañu ñu mën seen liggéey lañu ñu am yéene itam ci dimbale nit ñi lañu ba ma ñëwee it seet nañu samay bët euh, jox nañ ma ay verre yoo xam ne nii mën naa ci gis bu soree mën naa ci gis itam bu jegee te loolu moo ma fi indi woon moo fi indi itam samay moroom yu bare bare bare ak sama doom yi nga xam ne nii ñoom laa fa fekk te ñu am ay jàngoro gët comme nii ngeen ko defee ren yàlla leen ci yàlla defal ndam te bàyyi leen fii itam ba nga nii déwén ngeen defaat ko ndax lii euh, population bi nga xam ne nii waa ñooy waa Kër mbay Fall bu ñu sañoon daanaka semaine bu jot mu am. waaye ndegem mënuñu ko am semaine bu jot it nañ koy def at mu jot rek ndax lii lu am solo la euh, gouvernement mënul def lépp ndax euh, dafa am loo xam ne nii nguur la war waaye am loo xam ne nii itam askan wi ñoo ko mun a defante ci seen biir ni ngeen ko taxawoo dafay dal xelu mag ñi nga xam ne nii euh, ñoo leen jaboote kon di leen ñaanal rek te di leen sant delluwaat di sant waa kër docteur yi nga xam ne ñooy ñoo ñëw taxawu bés bi waaye nag cant gi yëpp yéen la ñu koy defal yéen alliance pour le développement de Kër Mbaye Fall ndax euh, lii ngeen def euh, dëgg la seeni i waajur ak seen jaboot seeni i doom seen i rakk seen i mag ngeen ko defal waaye seen bopp ngeen ko defal ndax euh, nit ki da koy defal lu baax waaye booy def lu baax ci nit ki bul séntu payu nit ki séntu ci payu sunu borom. sunu borom mi am fay yal na leen fay bi jaay nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañu trop bég nañu lool. te mbégte gi nga xam ne moo ma animé it yaakaar naa ne képp ku dugg ci biir boo génnee mbégte gu raw gi ma am moom ngay am ci bés bi kon jërë ngeen jëf.